confiance Mamadou xam nga lu xew Podor particulièrement tey xam nga comment li ñuy def pour contourner les jeunes oui. détourner leur conscience ils organisent des des des, des organiser des tournois dont eux ils sont ils je donne mm-hmm. l'exemple du tournoi qui a eu lieu à Goléré. où le ministre pardon le directeur le coordonnateur du Puma Moussa était parrain. Mm-hmm. xam nu ñuy def. ils demandent aux gosses de ne pas venir avec les licences ils qu'ils avec leur pièce d'identité pour la finale ou pour le tournoi pendant ça ils récupèrent toutes les cartes d'identité qu'ils mm-hmm. photocopient ñu dem remettre les les gosses pour c'est comment nañuy détourner risqué pour eux parce que euh, xale bi ce qu'ils sont en train de faire li ngay dégg yëpp pour la plupart li ngay dégg yëpp c'est du escroquerie politique la pour la plupart c'est des signatures imitées suñu les responsables de l'APR de Benno Bokk Yaakaar justement jox l'exemple de la finale qui a eu lieu à à Goléré. Mhm. le Moussa Moussa Sow coordinateur Puma était était parrain. les jeunes lors lors du match qui a opposé Dioudi Diabé ak euh, Méry c'était ça man je doon dama waxoon. mais loolu aussi dafay wane que ne euh, dëkk bi dafa malade euh, par la tête parce que aussi ñi ñuy diriger joxe le bon exemple bu nekk ci yenn pratiques yi ça veut dire que tey mooy li tey je parle même pas mais je veux dire xeetu escroquerie boobu noonu. loolu aussi c'est à dénoncer mais mais c'est grave. man quand j'ai vent de cette affaire là j'ai dit aux gosses désormais ne donnez plus vos pièces d'identité bu leen mhm. joxati seen carte d'identité parce que nga organiser tournoi nga lax leen yow tu es le yow tu demandes aux gosses war a ñëw football si nañu indi carte d'identité bu ñu indi licence mhm. tu rassembles toutes ces cartes d'identité